يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أجبت دعاء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 jéggal ñu suñuy bàkkaar jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc noo ngi bëgg ñëw ci benn tomb bu am solo boo xam ni dañu bëgg a def pratik bi ndax ñu bari ci nit ñi dan koo xaw a réere muy sifatu salaatil marid sifatu salaatil marid mooy melokaanu julli ku feebar ki feebar ak ki am gaañu gaañu ak ki ndiggam di metti ak ki amee rëq-rëq ak jafe-jafe xam ngeen ni julli du wàcc kenn waxtu wu nekk xaal bi nga nekk am na noo war a julle kon ki feebar war na julli julli yépp ci waxtu yépp su fekkee ni mën na ko kon na bàyyi loolu xel su fekkee nag julli googu ak jëf googu war na ci nit ki am na jafe-jafe feebar na am na lu ko war mu war koo def ki feebar dagal na ci moom mu boole julli tisbaar ak tàkkusaan mën na ko boole jamu taqdim wala jamu taaxir yaram bi metti na feebar na comme feebar na mënta jóg julli waxtu bu nekk may nañ ko mu boole tisbaar ak tàkkusaan ci première waxtu maanaam bu zawal jotee rek mën naa julli tisbaar julli tàkkusaan mooy jamu taqdim su fekkee ni feebar bi tamit gën na ko sonal may nañ ko mu boole julli tisbaar ak tàkkusaan jam u taaxiir mu julli ko ci mujj waxtu tàkkusaan wa kazalika timis gee mën naa nekk benn rekk moo mënul te nekk muy fajar fajir boobu nag moom mënu koo boole ndax jokkoowul ak benn takkoowul ak benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mujj dundam doon na julli di toog ci ay julli naafilaam ndax Aïcha radiyallahu anha wax na ne lam yamut rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatta min salaatihi wa huwa jaalis axrajahu muslim nee na yonent bi sallallahu sallam faatuwul lu dul li ëpp ci julleem moom yonent bi dafa doon toog kon nag nit ki ci biir julli bi ak ci biir feebar bi li mu ci mën a taxaw na ca taxaw lim mënta taxaw na ko toog su mënta toog na wéeru su mënta wéeru mën naa julli julli tëdd léegi nag benn bu nekk ci yooyu ak bañ garder temps bi lool ndax lii nga xam ni dañu ko bëgg wane ay melokaan la yoo xam ni nit ki daf ko war a bàyyi xel bu baax julli taxaw moo gën laa sakka ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na man salla qaiman fa huwa afdal wa man salla qaidan fa lahu nisfu ajril qaim nee na képp ko hadis boobu ahlu sunan ñoo ko génne nee na képp ku julli taxaw nee na day loolu moo gën waaye ku julli toog day am xaaju ki julli julli taxaw léegi nag yan melokaan moo am ci biir julli ñeenti mbir am na ci am na boo xam ne nit ki dafay taxaw loolu mooy li jiitu te moo ci gën mooy jullik ku wér julli taxaw ñaareelu façon bi am na jullik koo xam ne day jenglu ndiggam dafay metti walla tànkam dafay metti walla mu am luy metti ci moom mënta taxaw taxaw bu jub ñetteel bi mooy julli wéeru ci dara wala jàpp dara ndax kat ata rahimahullah nee na sahabatul kiram doon nañu julli di jàppandu ci lu mel ni bant ñeenteel bi mooy julli wéeru ci kaw dara julli am ci loo wéeru loolu bokk na ci kon ñeenti melokaan yooyu moom la ñuy njëkk a wane bu njëkk bi sax jàpp naa ni wane gi moom nekkul woon sax lu ñuy wax di ko waxaat ndax ñëpp xam nañ ko kon melokaan bu njëkk bi nga xamante ne mooy julli taxaw du ñu fi toog di ci per perdre temps mais dañuy ñëw ci ñaareelu melokaan ñaareelu melokaan bi mooy julli jengulu julli jëngulu mooy lan nit ki dafa war a julli tànkam benn ci tànk yi am na lu ciy metti walla ndigg bi am na lu ciy metti mu bëgga julli te taxaw mais mënta taxaw taxaw bu mat sëkk kon façon taxawin boobu da koy def rek bi qadri istitaati par exemple ndigg bi day metti comme yoro xam nga fan yi ndigg bi da doon metti nga xam ni mënta ni allahu akbar mooy bu njëkk bi taxaw taxaw bu normal bii mooy première melokaan bi taxaw bu normal bii nag ki wér amul benn jafe-jafe mooy premier choix ci moom taxaw taxawaay bii bu fekkee nag salaat inhina la mooy deuxième bi kii dafay julli mais daa am tànk bi day metti ndeyjoor bi wala càmmoñ bi walla ndigg bi ñu ñëw ci ndigg bi metti may nañu kiy julli bu fekkee ndiggam day metti te mettiwul à cent pour cent mu def gest bi may waaj def bu fekkee ni noonu la ndiggam di mettee kàbbar na allahu akbar mais mënta taxaw comme nii tax taxawaayam léegi nii la ndax ndigg bi day metti léegi mënta taxaw taxaw bu normal kon nii nii mu taxawee mooy inhina allahu akbar mu kabbar def nii léegi nii la nii la ko yoon may lii ko yoon may mooy métit moo ko ci indi métit bii ko ci indi muy jullee nii loolu boo ko gisee da ngay xam ne kii dafa am lu ko dal kon julleem façon jullee bi wér na ndax bii lu mën a nekk la beneen bi ñaari tànk yi am na fenn fuy metti moo xam dojor yi wala lenn am na lu ciy metti te préféré na taxaw am na benn côté bu mën a taxaw par exemple tànku ndeyjoor bi moo am luy metti óom bi mooy metti wala dojoor bi dafa rëq wala dafa damm wal iyaadu billah kon kooku buy taxaw day wéeru ci benn tànk bi wér ndax benn tànk bii comme dafa am jafe-jafe mënta taxaw juste kon ni ko yoon may mu taxawee mën na taxawee nii par exemple tànk bii moom amul dara wér na mu téye bi mais bii fi métit bi toll fa la koy taxawee ndax boo bëggee tollal yëpp mu yem dafay daal di metti kon léegi may nañ ko mu taxatox bii ki ci façon inhinaa la mooy façon julli koo xamante ni dafay sëgg bu fekkee ni tànku càmmoñ bi tamit la même chose noonu lay def tànku càmmoñ bi óom bi wala dojor bi am na fi metti buy taxawit mu taxawee nii maanaam benn tànk bi jub biin léeg-léeg nga dugg ci jàkk gis ku taxawee noonu su fekkee ni amul benn feebar amul benn métit taxawaay bii jaaduwul mais bu fekkee daa am benn métit kon su boobaa nii la mën a taxawee loolu moom mooy ñaareelu melokaan bi ci julli bi ma njëkk wax mooy ban julli taxaw ku wér mooy taxaw juste ñaareel bi moom mooy julli koo xamante ni day julli julli inhina maanaam wéeru ci côté am wala ci lenn maanaam dëngulu ñetteel bi mooy nit ki wiiru ci daal ci julli bi par exemple am na métit mënta taxaw à 100 pour cent yore na yat may nañ ko ci biir julli bi mu yore yat ndax kat taxawaayam baaxul màgget la benn walla am na lu koy metti kon may nañ ko ci biir julli gi mu def nii di julli gis nga bu defee nii di julli mën na def nii mu nekk comme xab doom benn loxo bi nii gis nga ko mu def nii mën na julle nii mooy mooy mooy ñetteel bi gis nga ko nii su fekkee fii la ko mën a téye xëy na fi mu ko mën a téye loolu mooy jullik téye ci yat kàbbar di jàng allahu akbar continuer li muy jàng léegi bu defee nii buy rukkoo fi rukkoom yem lay dem maanaam buy rukkoo nii bu ñu àggee ci rukkoo allahu akbar mën na def rukkoo su fekkee mën naa dem sujjóot mu dem sujjóot mu moo gën bu fekkee mën naa dem sujjóot léegi dafay teg yat bi nii sujjóot gis nga ko su jógaatee mu wéeruwaat ci yat bi mooy istinaada ala shay mooy téye daal lii benn façon la beneen façon bi ci wéeru bi am na fu mu wéeru moom rek mooy julli wala ci jàkkalay jullee côté biy metti seet na fi miir ba féete te sàppe bi àgg fa bu fay julli par exemple mën na julle nii ñu ngi ci ñetteel bi ah gis ngeen nii bu kàbbaree di julli xam nga moom am na lu koy metti may nañ ko mu def nii allahu akbar wéeru nii di julli gis nga ko nii lan moo tax mu wéeru nii ndax ndax ndax wéeram moo ko ko may kon wéradéem moo ko ko may ndax bu taxawee nii daanu bu taxawee nii am lu ko metti kon may nañ ko mu wéeru nii bu dee côté ndeyjoor bi la côté càmmoñ bi may nañ ko mu wéeroo nii ci biir julli bi bu fekkee ni mënta wéeroo côté mënta wéeroo ndeyjoor mënta wéeroo càmmoñ may nañ ko mu wéeroo nii par exemple gis nga nii mu wéeroo nii di julli su àggee ci rukkoo mu rukkoo bu fekkee ni bu àggee ci rukkoo rek mu ñëw nii rukkoo du sotti na sës ci miir bi nii sës ci ndiggam allahu akbar mu sës ci ginnaawam nii pour mu mën a rukkoo gis ngeen ni mu ko defee kon loolu moom mooy ñetteelu façon bi ci façon jullit koo xam ni dafa tawat kon gis nga ñeenti melokaan yi wane nañ ko muy melokaanu ku wér mooy lan intisab mooy taxaw taxawaay bu jub ban moo ci topp ah inhina mooy julli koo xamante ni dafay sëgg ndax am na lu koy metti ban moo ci topp itimaad mooy julli wéeru ci dara loolu moom lañ doon wane kon nag mu des ban julli mooy julli toog moom moo ci des julli toog bi dafa am ay façon chaise baa ngi nii chaise nga préféré julli bu dee yow dong léegi mën nga taxaw bu fekkee mën nga taxaw ci takbiratul ihram toog moo gën léegi taxaw nga ñuy kàbbar allahu akbar kàbbar ba pare nga toog nii nga toogee wiiru nga kon amatoo jafe-jafe ci biir julli gi yaa ngi ci biir julli gi ndax toogaay bii moom nga mën moom nga def kii salaatu farit la mooy julli yow dong nii bi nga defee nii léegi yaa ngi ci biir julli gi boo demee ba àgg ci rukkoo allahu akbar nga rukkoolu yem subhaana rabbi alazim subhaana rabbi alazim nga wax ko juróom-ñaari yoon walla fukki yoon wala lu ko yées nga siggi ci rukkoo bi su fekkee ni ndigg bi rek moo doon metti toog nga mën mais sujjóot mën nga ko kon léegi kàbbar nga teg nga sa loxo ci dënn jàng nga li ngay jàng bu rukkoo jot nii nga mën a rukkoo nga ko léegi lan moo de sujjóot sujjóot bi mën nga ko kon dangay ngay wàcc nii allahu akbar nga sujjóot gis nga ko nii siggi toog sujjóotaat siggi toog su fekkee ni wàcc sujjóot bi dafay jafe ci yow comme ni muy jafee ci yow ci toogaay bi ah su boobaa kon boo rukkoo nii ni allahu akbar xam nga bii bu yem la sujjóot bi da koy gën a sori nga siggi boo àggee ci sujjóot bi nga gën a wàcc tuuti wàcc bu njëkk bi mooy rukkoo allahu akbar subhaana rabbi al azim subhaana rabbi al azim subhaana rabbi al azim ci rukkoo booy sujjóot nga demaat allahu akbar mayuñ la nga teg daara nga sujjóot ci mayuñ la nga tibb dara nga sujjóot ci ni nga mënee rek noone ngay jullee loolu mooy salaatu munfarid ci kiy julli julli toog muy benn ñaareel bi am na julli toog beneen boo xam ne nekkul chaise mun nga toog mais sa toogaay àggul ci chaise mooy am na boobu tamit ñaar ba ñetti façon façon bu njëkk bi mooy toog ferenkulaa yi mooy tarbiya nii yaa ngi toog bi nga toogee nii mooy gis ngeen ni ma def sama tànk yi ferenkulaay ferenkulaay boobu ñu ne càmmoñ bii warul jiitu kon càmmoñ fii lay dugg nga toogee nii ci ferenkulaay xam nga bi nga toogee nii léegi yaa ngi mel ni ku taxaw ñu kàbbar allahu akbar nga kàbbar jàng li ngay jàng soo demee ci ruku moom it ni nga defoon comme ci sées bi noonu ngay defaat ci ruku bi nga ni allahu akbar subhaana rabbiyal azim nombre bi nga ciy def nga def ko siggi loolu mooy siggi ci ruku mu des sujud bi sujud bi bu fekkee ni nga toogee mën nga koo dindi sujud sa jëf moo gën léegi dem nga ba war a sujud nii ngay def dindi tànk bi gis nga ko nii jël nga ko normal gis nga ko xam nga xool leen tànk bi ni mu def nii nga toogee kàbbar teg loxo bi ci dënn bi nga jàng li ngay jàng ba pare rukkoo nga rukkoo nii ndax wéra di moo la ko may nga siggi ci rukkoo war a sujud te mun nga dem sa jëlaal suuf kon xoola tànk bi nii lay def dañ gis nga ko bu defee nii dañ mu nekk tawarruk nga ni allahu akbar nga sujjóot sa ñaari sujjóot siggi bi toogaat walla jógaat mooy toog siggi toogaat nga delloo tànk bi nii du gis ngeen melokaan noonu la koy defee mooy façon toogaay bu njëkk bi bii su fekkee def nga li ma def yépp ba ci rukkoo sujjóot bi munoo dem kon sujjóot bi na gën a jege rukkoo bi comme ni mu meloon ci toog ci séeg bi allahu akbar rukkoo subhaana rabbiyal azim nombre bi nga wax siggi ci ruko nga war a sujjóot booy demaat allahu akbar mu gën a sore subhaana rabbiyal ala subhaana rabbiyal ala subhaana rabbiyal ala nga siggiwaat loolu mooy façon toogaay bu njëkk bi beneen toogaay bi nag conditionné wuñ la ci ni nga mun a toogee ngay toogee par exemple da ngaa am métit munoo ferankulaayu mun nga toog toogaay bii allahu akbar du gis nga jël nga toogaay bi gis nga ko toogaay bii nga toogee ko façon toogaay bii nag li la ko may nga jullee ko mooy bii nga mën nga toogee ba boo ko munul mun nga toog façon toogaay bii boo rukkooyee siggi ci rukkoo boo mënee àgg suuf nga sujjóot soo ko mënul nga def lu ko gën a jege loolu mooy façon toogaay boobu soo mënul ñaari façon toogaay yii toogaay bu yomb ci yow nga mun koo def rek jëlal façon toogaay boobu incha allah kon gis nga julli wàccu la yow jullit bi ci benn côté mu def nag julli toog ci mbooloo walla ci jàkk julli toog ci mbooloo wala ci jàkka na na na na juróomi nit rek ñëw ci yow que ça mag ñëwal yow yow ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal sàppele wan leen toogaay léegi jàkka la dañoo nekk ci sàppe bu mujj bi te sàppe bu mujj bi léegi sàppe bu mujj bi beneen sàppe du ci ñëwaat sàppe bu mujj bi xam nga ni beneen sàppe du ñëwaat leer na la te yow julli toog nga ma sées bi kon gis nga ko nii du tolloo ak nit ñi day bàyyi tànk fu say tànk xaj ndax yow mën nga taxaw kàbbar xam nga ni mën nga taxaw kàbbar comme mën nga taxaw kàbbar nag bu yeboo nga xam ni léegi sa première chose mooy nga taxaw nii boo taxawee ni allahu akbar nga ànd ak ñoom ba pare ginnaaw bi nga toog nga ànd ak ñoom ba pare ginnaaw bi nga toog léegi toog bi fii kenn du ñëw première toog bi li ñu soxla mooy comme tànk yi day tolloo nii gis nga ko kon chaise bi day na ci ginnaaw léegi maa ngi ci sàppe bi normal ndax toog bii laa mën lan moo tax bu ñu demee ba toll ci rukkoo mën naa ko kon su boobaas bii lay sàmm imaam bi jàng na. ba ñu toll ci ruko par exemple mën ngeen dem ruko ma wan leen yéen ñëpp dem leen ruko gis nga ko imam bi bu ne allahu akbar jëm ci ruko rek nga jóg allahu akbar ànd ak ñoom ci ruko bi samia allahu liman hamida ñu siggi ci ruko man mënumaa dem sujjóot ndax damaa feebar ñu ne allahu akbar ñoom mi ngeen dem di sujud man buñ ne allahu akbar man bii laa am toog toog bi nag mooy ma def lu gën a jege nii comprendre ngeen dégg nga ko mën ngeen a jóg bu fekkee ni bii la mën naa nekk siggi leen ngeen taxaw siggi nañu taxaw mais léegi man ni ma toogee ginnaaw kàbbaru armal mënuma leneen loolu rek laa mën toogaay bi laa mën kon su boobaa buñ ñee allahu akbar di rukkoo bisimilah rukkoo leen damay ànd ak yéen rukkoo ni allahu akbar subhaana rabbi alazim subhaana rabbi alazim sami allahu liman hamida ñu siggi allahu akbar ngeen jëm ci rukkoo ma def lu gën a jege waaw loolu mooy benn façon bi gis ngeen ko jógaat leen ñu ñëw ci ñaareelu façon bi ñaareelu façon bi mooy dañoo war a julli mais sàppe bi ma taxaw ci ginnaaw day am sàppe kon su boobaa du jaadu ma teg sama sées ci ginnaaw ndax am na ku war a toog fii ñu fi war a taxaw war a sujjóot kon du ma teg sama sées ci ginnaaw di leen ishgaal léegi man ni may def mooy sées bi day tolloog ñii day tollook ñii gis ngeen ko bi sées bi tolloo ak ñii léegi man dama jiitu nii bi ñuy kaabar ni ñu taxawee xam nga sàppe yi day jub mais man xukmu bi ma may ma toog moo ma may ma jiitu leen islaam du ma ko tere ndax léegi xam nga bu ma taxawee nii day mel ni tolloowu ma ak ñoom mais léegi man nii ma taxawee nekkul àtte ci man chaise bi mooy àtte kon chaise bi mooy tollook ñoom kàbbar nañu ba pare nga xool fu ma toogee damay tolloog ñoom lu ma leen jiitool yi gis nga ko kon maak ñoom ñoo bokk benn àtte leer na ah kon baax na mun ngeen dem jazakumullah xayran gis nga julli du la wàcc yow jullit bi benn yoon ñun nag war a julli ci jàkka wala ci mbooloo ay fitna yu bari dañ ko ci faral di am ndax suñuy nit liñ ci xam bariwut liñ ci mën bariwut léegi nag mu def am na toogaay boo xam ne mën ngaa toog wéeru du doon ngeen ko jàng toog wéeru da toog mais toogaay bi jubut du séer ci suuf la mënoo toog toogaay bu njëkk bi mooy frenkulaayu bi ci toog mooy jam tànk ban toog nga mën tàllal say tànk ndax da nga amee métti gis nga ko nii nit ñi bu ñu sàppee nii kon lan mooy sama artiste sama ndigg tolloog ñoom comme niñ ko defee woon dama leen di bañ a sonal ngeen di ñëw comme niñ ko defee gis nga ko nii sàppe baa ngi nii wala na na na ñett ñëw rek ma woon leen ndax mu gën a mu gën a neex a expliquer ñu ko ñu ko soxla am ñoo xam ne moom ay mag lañu bëgg nañu julli mais acte bi daf leen xaw a jaaxal na ñett taxaw jël bi mi ngi normal ba tey ba tey nii baax na ñëwal gis nga ko léegi man sama tànk yi mënta banku mënuma serenkulaayu munuma toog tawarruk tàllal tànk laa mën kon sama acte nii la nii allahu akbar ma ànd ak ñoom su ma demee ci rukkoo nan laa war a kan moom ma koy waxal ah nan waaw rukkool ma gis bien rukkool leen ma gis ah jële ma sama gars yi ñoom dañoo bëgg ñu jëlee gis nga rukkoo leen ma gis gis ngeen ko gis ngeen ngeen def noonu mooy rukkoo bi gis nga ko ni allahu akbar subhana rabbi al azim ñëwaatal subhana rabbi al azim subhana rabbi sami liman hamida nga sigg ci rukkoo léegi bu may dem sujjóot nan laa war a def ate def leen ma gis ah bi day gën a sori waa kay allahu akbar léegi fi sama ndigg yam rek laa mënee mais na romb rukkoo bi allahu akbar subhana rabbi ala subhana akbar gis nga ko noonu mooy façon bu njëkk bi mën ngeen dem mu des nag mën naa toogee nii mais sama ndigg mayu ma ko may nañ ma ma wéeru gis nga ko imam kàbbar na allahu akbar gis nga ko ma wéeru ndax sama côté day metti damay tànn côté bële fi mu mën a wéeroo te sarte bi àgg fa ma sese ni allahu akbar ma ses fa imam di jàng xam nga ku feebar la sonn nga wala am nga mettit mais julli du la wàcc ak lu mën tam am julliwaat la loolu nag imam bi moo war a am xam-xam bu toll ni am na ku ñëw ci jàkka ji ndiggam di metti wala dara di ko metti wala daa feebar waaye imam yow tamit gàttalal julli mais bul topp sa baat bu neex rek di jàng rek man maa ngi ni allahu akbar di onk dama asmaw leen est-ce que mën naa déglu ngay jàng yaasin jàng saafaat jàng lu gudd kon dafa bokk xikmatul imam nga jàng yu gàtt wéeru ni allahu akbar gis nga ko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 allahu akbar bu gën a jege bi gis nga ko ndey joor ak càmm ndeysaan yéen ñaanal ñu feebar feebar daa metti mais doo feebar ba julli wàcc la doo feebar ba julli wàcc gis nga façon toogaay boobu léegi am na beneen toog boo toogoon mais ndigg bi mooy metti ndeysaan mënoo mënoo mënoo rukkoo ndax ndigg bi day metti mënoo sujjóot xam nga foofu nooy def bu ñu àggee ba toll ci rukkoo nii ngay defe sami allahu liman subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim sami allahu ma war a dem ci ruku sujud nu may def mu gën a jege allahu akbar subhana rabbi al ala subhana rabbi al ala subhana rabbi al ala waaye bu ma fàttee ñaanal sama bopp dama feebar allahuma ashfina min kulli daa nga ñaan façon boobu am na kon lépp ni jàppandi ci yow ci julli gi rek mbokk yëgal ni noonu nga war a jullee bu ko bàyyi xel nekkee woo ko xale nekkee woo ko mag ba julli wàcc la ndax julli julli moom du la wàcc julli moom xam nga kañ la lay wàcc bis bu la malakal mawti ziyaare see yàlla na yéex boobu la la julli gi di wàcc nga yëg ni kon léegi yow ànd nga nit ñi toog nga ñoom façon toogaay yépp def nañ ko wax naa toogaay yi ñuy tere yépp yooyu nañu ko moytu ci biir julli gi kon su ko defee nag léegi mu des jullik koo xam ni dafa feebar mënul ñëw ci mbooloo léegi nit ki dafa feebar yàlla na yàlla dafa feebar xam nga nii la feebar dafa nekk hôpital war a julli julli jot na mën na jóg toog bu fekkee nii la mën mu jullee noonu allahu akbar gis nga ko comme comme dafa war a xabdu moom xam ngeen ni daa war a xabdu ci julli gi waaye léegi feebaram bu toogee nii du mën a xabdu kon may nañ ko mu teg nii loxoom mu taxaw taxawaayu xabdoom alhamdulilahi rabbil alamin jàng lu ya jàppandi ci moom gis nga ko su demee ba toll ci rukkoo waa jëlaalal kii bi nii gis nga ko su demee ba toll ci rukkoo day ñëw lu gën a jege subhaana rabbiyal sujud mu gën a jege loolu mooy benn façon bi dégg nga ko ñaareelu façon bi bu tëddee nii nii la tànk yi jublu xibla foofu mooy xibla bi te mënta toog nii lay def allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim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 war na toll ci ruko bu mënee nii xool nii gis nga ko subhaana rabbil azim gis nga ko mën na ko munta sujjóot ndax feebar bi sonn na ci léegi xoola bopp bi may nañ ko bopp bi muy rukkoo léegi gis na ko bopp bi muy rukkoo loxo yi fi mu mën a yem la yem nii bu tegee loxo yi rek loxo yi moo koy wan ni dafa war a rukkoo allahu akbar pour war a rukkoo mu def nii subhaana rabbil azim subhaana rabbil azim subhaana rabbil azim siggi ci rukkoo mu war a dem sujjóot mu def lu gën a jege loolu mooy façon tëdd bi benn ñëwal côté bi ñaareel bi ñaareelu façon bi mën naa tëddee côté nii mën na tëddee côté te nga xam ni lii la mën parce que côté la tëddee ndax feebar fekk sono nii gis na ko daa sàngoo dafa gis na ko nii lay kàbbare xam nga ni mu tëddee noonu lay jullee kon buy kàbbar mën na toog kàbbar munu ko tëdd bi rek la mën allahu akbar jàng ginnaaw bu ubbee alhamdulillahi rabbil alamin jàng ba faatee jeex mu teg saar lan moo des mu rukkoo nan la mën a rukkoo li ko rukkoo may rek lay def li mu mën nii la mën a rukkoo subhaana rabbi alazim mu xaw a gaaw tax loolu la mën si ci rukkoo mu tëddaat sujjóot bi mu gën a jege façon tëdd boobu am na côté nu mu ko mënee bu fekkee nag àgg na ci feebar foo xam ni tànk yi mënatul yëngu mënul dara yàlla nañ ci yàlla mu son ngeen ñaanal ñu yàlla mu may ñu wér may ko mboolem jullit loxo yi mënul dara kon nag foofu julli geste bi day wàññiku mais xel bi mooy julli xel maa ngi fi jàng baa ngi fi loxo yi mënta jóg ki nekk ak moom na ko ni papa julli jot na papa julli jot na mu ne ah julli jot na ah kon baax na xaaral mu julli yow mi toog ci wetam nag may ko mu julli bul nekk di wax ci wetam mu nekk kii kon gis nga ko nii yaram bi yëpp mënul dara mu def nii gis nga loxo yi li mën a jóg fii la mën a jóg xoola gis nga loxo yi jël nga ko juuf allahu akbar xam nga ku loxoom mënatul dara mënul xabdu waaw ñi lay def mu jàng alhamdulilahi rabbil alamin noonu su mënee taj tajwid mu dal su ko mënul feebar bi tax na jàngeen bi gaaw mu jàngee noonu su dara desul lu dul rukkoo la même chose mu yëkkatiwaat loxo yi teg ko tuuti loolu mooy nekk rukkoo kon léegi calculam ak xelam mooy ànd geste mënatul am léegi wax rek moom mooy mën a am kon boo seetloo gis nga julli xale mag ndaw wàccul kenn ñun ñépp moo xam yow xale bi di nga toog léeg-léeg nga am métit waaye bul wax dama feebar rek du ma julli bu ko wax ndax julli du la wàcc bul wax sama tànk rek mooy metti wala damaa damm du ma julli déedéet noo mën a jullee jullil noonu ndax inna alsalata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta kon julli dafa war ci yow mu def nag julli koo xam ni loxo yi day metti mënta tee ci óom bi moo xam ruko wala sujud du xam ngeen boobu par exemple mi ngi julli mi ngi julli kàbbar na nii mais loxo yi mënta téye ci óom yi peut-être loxo yi daa damm ñu jàng ko wala leneen kon bu nee allahu akbar bayam nii léegi suy rukkoo nii rek allahu loxo yi bu dee benn bi def mais bu fekkee loxo ndeyjoor bi la naqab doo càmmoñ bi bu dee càmmoñ bi la naqab doo ndeyjoor bi suy rukkoo lu mu mën a téye ci óom bi na ko téye su mënul na bàyyi sujjóot bi ñëw na ci sujjóot war a sujjóot xam nga ne sujjóot jiital loxo la loxo yi day metti mënu ko bu xësee ba ñëw toog nii xam nga ne kooku mënul loolu ni mu mën a sujjóotee noonu lay sujjóotee mu des nag julli koo xam ni jëb yi daa am métit bu dee daa am taab fii léegi daa wànneen rek na rukkoo bu yem siggi ci rukkoo sujjóot bu yem ndax boo tegee sa jë am na imaam yu tëxit yoo xam ne boo ànd ak ñoom yor bët yu metti da nga dee kon su boobaa jar na sax boo ñëwee ne ko imaam man damaa wànne naa wala imaam man de sama bët fan yëpp day metti sama nopp day metti imaam ngir mu wàññi julli gi su dee jë bi dafa taab ci digg jë bi am taab ngay sujjóot nooy sujjóotee hmm? déedéet digg bopp kenn du ko sujjóotee côté bi ngay nii waaye fii nag imam bi na ragal yàlla côté bee moo tax lu ko mooy boo fa nekkee imaam di bal di dem rek bu yàggee nga génn ci julli gi kon yooyu yëpp day wane ni julli duñu wàcc ngeen fexe julli fu mu la fekk ay xale ngeen yu toll ci jàng toll ci nekk ay duaat toll ci defar société bi toll ci baaxal xam ngeen seen morom yëpp ñu ngi petit gàlle yéen ngeen ñëw ci grand gàlle mais faale wuñ ngeen grand gàlle mooy jàkka yàlla grand gàlle mooy daara grand gàlle mooy jàng al alquran petit gàlle dañuy gagné ay million yéen gagné wu leen ay millions mais li ngeen gagné moo million de faatiha benn alif fukki tuyaaba miim fukki tuyaaba kon ñaata nga gañe xam nga ñee par 5 millions la ñuy gañe eh, te 5 million boobu dara yow boo jàngee faatiha nga ëppale ko boo jàngee suuratul asr nga ëppale ko boo jàngee innaa anzalnaahu nga ëppale ko bu leen jamono nax jamono ak yàq-yàqam nit ñi dañuy gën a bon kon yàlla ñu yàlla may ñu am fiqhu fi salaat yàlla na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla defal ñu nusru defa defal ñu yusru ñu ngi ko defal nag suñu mbokk julli yëpp pour ñu jëriñoo ko incha allah ñu xam ne dañ ko def bi wajhi ixtisaar dañ koo def rek ci ci gàttal ak wan nit ñi geste yi buñ ci amee njuumte nekkul suñu yéene suñ ci amee lu ñu jim bëgg société bi baax la rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.